Euh, li xew euh, ci assemblée nationale euh, mu mujjee dafa mel ni daal diggante xalifa ak Sonko daal dafa mel ni jeex na Chérif waaw jeex na du tey xëy na assemblée bi daf ko gën a firndeel bu leen fàttali ni ñoom dañoo bokkoon seen coalition bu ñuy wax yeewi askan wi demoon élection locale jóge ca dem élection législative ensemble ñu ne woon bu jëmee ci présidentielle nag ku nekk day wuti mais gis nañ bi dialogue politique bi ñëwee waa taxawu ñoom décidé woon participer ci dialogue bi ci la coow li commencé surtout bi Barthélémy na mu bokk na ci initiateur dialogue yi te amoon na ci ndigalu Ousmane Sonko gis nañ conférence des leaders bi nga xamante ni Khalifa Sall moo ko jiite woon daal di ko fay bi Khalifa nekkee candidat à la euh, présidentielle. ci ñu leen jës décision dàq ko ne bokkatu ci parce que connivence avec l'ennemi lañ leen jàppe woon parce que dem nañ fekk nga xamante ne moom mooy Macky Sall maintenant li xew assemblée nag comme on l'a parce que ñoom waa taxawu. ci 56 députés yu yeewe yi ñoom amoon nañ ci 14 man mu nekk lu takku parce que 14 daanaka ñaari député moo leen manqué sax ñu am lim bi nga xamante ni moom mënoon nañoo am seen. groupe parlementaire ban ban àndee en tout cas ci première année bi ci législature bi gisoon nañ ni amoon nañ post yu bari ba daanaka sax ñoom ak benn bokk yaakaar ñu xawoon a yem doole ak bu bu ñëwee wàll maanaam opposition boo jëlee li yeewe am ak li wàllu am ak benn am daanaka ci ñoo ko doon séddoo. muy ci huit postes vice président yi mais gis nañ force yi benn jël na juróom yi mu mel ni kon euh, jafe-jafe yi bennoo ñoom ñoo ci profito hmm. ci jël nañ cinq yi yewe askan wi finalement deux voix poste vice président la am wala am benn questeur bi nga xamante moom moo yor koppari assemblée nationale foofee gisoon na ni par exemple ka toppoon ca Daouda Dia mi nga xamante ni bërki démb lañ ko nommé ministre de l' moom it ci opposition bi la bokkoon nga xamante ni dinañ a xool saytu alal xëy na bu fekkente ni opposition bu nekkul fan yi yore assemblée nga xamante ni daanaka transparence amu ci ndax mbiram reddition des comptes doo ko dégg mhm. loolu moom moo taxoon ñoom ñu doon xeex ngir mën a bokk ci fan yi nasaka noccee mhm. mais gis nañ aussi ñaari poste yëpp muy questeur ba Aminata Gueye ak Yoro Sow ñoom ñëpp ils sont de Benno Bokk Yaakaar secrétaire élu aussi la même chose on a vu que daanaka Benno Bokk Yaakaar moo raflé la mise avec euh, boo xamante ni quand même am na lu ñu jaayoon. Mm. Sénégal yi ne bu ñëwee déjà assemblée nationale rupture lañ fay wax. mais gis nañ sax déjà première année ci législature bi mën nañoo jàpp ni rupture am na fa. Mm. déjà nañ installé assemblée ba ci pagaay baag yu ni mel ak coow li nga xamante ak des aussi manque expérience moom moo leen di waral. Mm. yu ci bëri sax waa Benno dañ leen doon ndax loolu on l'a on mm-hmm. ci première année gis nga ko ba ni doon dàqee ay Aminata ak yu loolu lépp bokkoon na ci li nga xamante ni Omar Youm ak ñoom xëy na expérience bi ñu mm. bokkoon na ci ba daanaka les présidents de groupe daaw leen boole ci li nga xamante ni mooy kii maintenant nag assemblée nationale ku leen wax ay député moom suñuy ànd par affinité la looloo tax sax ñu mën a samp li nga xamante ni moom mooy seen groupe parlementaire mais affinité mooy ñoo xamante ni na bokk nañ jëmukaay bokk nañ fi ñu ko moo gën ñoom nag nañ ko bëggee euh, yewi ak euh, surtout waa Pastef le problème c'est entre Pastef ak mooy taxaw bi nga xamante jiitu nañ parce que ñoom dañ ne dañ leen doon boole ci groupe bi mais bokku na li tax ñu sédd leen ci cër yi te boo xoolee am na lu xewoon ci ville de Dakar aussi biñ ko doon euh, sos loolu tamit moo gënoon indi coow tool ci mhm. li nga xamante mooy adjoint maire Dakar yi nga xamante ki toppoon ci Barthélémy Dias di Abbas mhm. Fall et cetera nañ ko ci ba nag ba nga xamante waa Pastef sax finalement dañoo mujjoon a gedd donc loolu bokk na ci li indi en tout cas mhm. tension bi entre les deux parties ce qui profite bien sûr ak euh, coalition bi nga xamante ni moom mooy euh, Benno Bokk Yaakaar maintenant waa Taxawu ak seen 14 députés nee nañ ils seront non inscrits bon c'est du gâchis

Euh, coow commencé naa am mooy le 9 août. Mhm. dernier nga xam ni euh, Yewwi Askan Wi dañoo génne daal di décider génne. Mhm. Euh, le mouvement de xalifa Sall ci coalition bi. Mhm. moment boobu je pense. vraiment la ñu mën a jàpp ni fi mu ne nii. même bu assemblée. Eh, convoqué woon pour ñu waxtaan. Mhm. xëy na foofu dinañ fa wane lii ñu wane. ci mhm. samedi bi euh, passé. Mhm. waaye boo seetee euh, Yewwi Askan Wi. Euh, bañ ko créé deux mille vingt et nga xam ni dañ doon waajal peut-être élection locale yi. mu nekk ci diggante benn alliance. parce que alliance la woon nag entre Pastef PUR. ak taxawu Sénégal ñoom vraiment ñoom ñooy ñoo sëkk. Euh, la création de Yewwi Askan Wi euh, ba loolu amee ñu gagné Dakar en janvier Barthélémy Diaz nekk euh, dison euh, maire Dakar dañu amoon benn genre pacte bu amoon nga xam ni Abbas Fall la ñuy def premier adjoint mm-hmm. mais ba ñu commencé indi am euh, disons ci dialogue national bi ba ñu commencé am réeroo. Euh, ci lañ commencé wax ay mbiru trahison xam nga trahison nag foo ko wax. Euh, après ku ci nekk day gis boppam nga gis Barthélemy Diaz sorti bi mu fi dafoon attaqué Sonko Sonko moom it génn tontu ko. ainsi de suite tontonte yi mel ni tulleeg male ci média yi. ba xalifa Sall di dem Brooklyn ci benn tournée aux États-Unis benn patriote daal di koy gàttandu. wax ko fa ay wax yu jéggi dayoo yu teggi newul nan ko da ngeen a trahir Ousmane Sonko ba mu moom rappelé xalifa Sall que ni moom ci biir salom lañu ñu créé yeewu askan wi donc mu nekk ay secret yoo xam ni sax euh, révélé woon nañ ko te ba ñuy créé yeewu askan wi dañ ni woon. Mhm. coalition bi ci histoire Sénégal. mooy mhm. coalition boo xam ni. Mhm. Euh, dina dajale opposition bi te mosu fee am. fi mu ne nag fee am boobu mi ngi jur. xéewaloo ak euh, pëccëxoo ci biir ndax kenn déggalatul sa morom. Mm. te ku ci nekk yaa ngi Euh, ber sa daara mu mel ni daal lu euh, lu nakare rek la la fi mu ne mm. nii euh, li ñuy perte rek moo ci dommage ndax mm-hmm. quatre bureaux yi ñu amoon ca assemblée nationale mm. quatre biro yooyu ñàkk nañ ko te quatorze députés mm. comme ni ko Chérif waxee fi mu ne nii ñoom yu nekkoon dison taxawu Sénégal génn nañ ci askan wi mu nekk daal bon ay xiiroo ngaayoo yoo xam ni euh, xamoon nañu ni mm. peut-être euh, bu assemblée taxawee rek fii lay mujjee te mm. Benno Bokk Yaakaar mm. euh, bon <laughs> xëy na gars yi bëggeewuñ ko noonu mais ñoom ñoo ciy bénéficié wu ñoom ñooy gagné te dañ leen di ree sax de loin parce que dañ naan ñi ak seen wax ju bëri ji yëpp nekk ne juboowuñu donc voilà ñoom ñoo andi kii bi de féewaloo bi. voilà c' jëm ci élection présidentielle. dafa ah, mel ni classe bi soxna Faati waaw non non dama ci cof tuuti rek bi ñu jëm nii xëy xëy na deuxième tour mën naa am te ëllëg ku ne mën ngaa soxla solo malgré wax ju moo tax aussi dafa mel ni politiciens yi surtout loolu duñ sóoraale ni am parce que muy yewi di Pastef bi nga xamante ne ku ci nekk xëy na yaakaar nga am candidat ëllëg mën nga soxla sa morom bu fekkante ne jëm nañ ci élection boo xamante ne ay second tour mën naa am mm-hmm. ka yegg ñu point de non retour. fi mu ne nii bon on est en politique a vu on a vu est ce que gis ñu fi woon tamit lu lu rawoon bi yettante melengaan comme comme disent wolof mais bu ñu dañuy àndaat. Mm, ah, yooyu moo gën a rupture yooyu mooy gën a métti ñoo xamee ni c' des ennemis. déclaré yu ñuy ñi xam. mais mais su ngeen demoon ànd jege wantoo dem ba trahison. soo ko mayee léegi mu jox la fi exemple moom Chérif yu gën yu gën a. Ah, Absolument. en tout cas en tout cas c'est c'est c'est dommage pour Yewwi merci beaucoup euh, euh, Chérif euh, Mortala Cheikh Tidiane Diaw ak Cheikh Diop ci actu commenté bi sept heures jot na ba tegal fukki simili ak juróom-ñett ñu dem léegi léegi ci un jour au Sénégal un jour dans le monde